tax ñu siy découragé un man xëy na fin wu période Senghor laa fekkee fin wu Abdou Diouf laa si fekkee kii boobu ba léegi maa ngi dégg ñu naan le président de la République ne doit plus être chef de parti sa taw la gis ba tey mm-hmm. ñu naan la chaque fois campagne électorale ñoom ñëpp koy promettre kun si élire bon ça te convient tu gardes le système comme ça daana man tey suñu ma faloon président de la République du Sénégal gis nga constitution Sénégal bi benn moo kenn du ko si changé xam nga lu tax c'est parfait pour vous pour man waaw. pour le président. door nag mën naa toog ne nan changer constitution bi baaxul c' est un kii kii. Mm, mais boo ñëwee. soo ñëwee tu te rends compte kii ça fait de toi un dieu. bien sûr oui oui di dieu. daf lay jox doole bi mu lay jox moo tax yow kii doo doo doo si laal dat moo tax gars yi naan boo ci nekkul mën ngaa kaas waaye boo xasee ba dugg ci biir. surtout soo yor ba lire constitution bi nga xam ne lii yow non mais c' est teg moo tax tey jii par exemple Macky Sall pour man il aurait rendu service au Sénégal ah avant muy dem. mu faire adopter une nouvelle constitution du Sénégal. absolument constitution. boo xam ni moom comme day dem. comme day dem. wàññi doole président. déet mu def constitution boo xam ne deux deux chefs d'État normal. Euh, équilibrer les institutions. waaw mais ça aurait été extraordinaire. moom tey jii amatul wutu si dara day dem. day dem mais cest il est le mieux placé pour def ko. bien c'est le seul il est le mieux placé damay dem j'ai fait mes deux damay dem mais xam naa kii bi nag léegi je vais toutes les institutions du Sénégal oui. président la République dootu nekk président du conseil supérieur de la magistrature dootu nekk président de parti soo nekkee président xëy na sax kooku mën na ko mais soo nekkee président la République automatiquement ça s'accompagne de la démission de ton parti ainsi de suite genre mu rééquilibrer les institutions. yomb yomb na te jure il aurait rendu le Sénégal dafay dugg dans l'histoire actuellement tey mu faire adopter une constitution pour le Sénégal nga xam nag léegi ba pare su ko jëree sax dispositions yi mu rendre leen euh, inamovible. maanaam dispositions yi kenn doon ko modifier jeex na. mais professeur xam kañ la ko mënoon def ba mu amee deuxième mandat. loolu ca lendemain ba. nii mun na ko def nii mi ngi dem. mais boobu je n'étais pas sûr de faire un ko mais tey jii nga xam ne nee na damay dem. je damay dem je travaille pour l'avenir. Ah, c'est important ce que vous dites. damay travaille pour l'avenir je rentre dans l'histoire je deviens le plus grand chef d'État de l'histoire du Sénégal. il a raison.